nag lan moo mun nga ñu wax li xaw fii ah daal dañoo jékki-jékki gis affaire bi di saxaar di ñëw suñuy dëkkandoo lañ nag ñun ñoo bokk dëkk Fass ñu ñëw pour seconder leen ba ñuy ñëw di leen seconder tamit oto ambulance yi bañ dafa yéex a ñëw ñu ñëw mujj yéeg ci kaw di sotti suuf di sotti ndox ñu nekk waa koñ bi comprendre nga ba ambulance yéex na ñëw mais ñëw na ba mu ñëwee am dafa am problème sax pour dugg lu tax ambulance dafa am problème pour dugg parce que oto yi ñoo baare fii ambulance amul fu mu dugg ambulance amul bu mu dugg mu le maire bi wax nañ ko boobu ba léegi ba mu faloo avant muy falu yëpp ñëwal oto yi pour ñu mun a am pour gars yi maire Fass pay la tudd xam nga man comprendre nga dellul rek dellul ñëw nañ bi si moom du benn yoon du ñaari yoon ñëw waxtaan nañ moom fii mun ne chaque jour danaan non dinaa fa ñëw dinaa ba ñëw tey bu dul woon lii ba muy tax ñëw fi ñëw fi lii ba muy tax ñëw fi Fallou maa ko gis Fallou dem wooyu monsieur le maire muy ñëw di soog am lu muy revendiquer ñun Fass xam nga lan la ñu bëgg ku ñu dimbali liggéey suba nag xalaatuñu maire bi suba huit heures ñun dañuy fajal suñu bopp parce que Serigne Touba Mbacke monsieur le maire bi njëriñ bi am fii maa ko ëpp njëriñ Fass parce parce que suñu yaay yi wala suñu rakk yi wala suñu doom dañuy feebar ñu am problème pour génne oto yi ñu nekk comprendre nga léegi mi ngi lakk ambulance mënul dugg lu toll ay 100 mètres lay dóor raakom pour mun a fay lakk bi loolu du yoon te maire bi nekk fii di yeewu di enquête juuti war na mën a defar fii xoolal suuf si xoolal koñ bi nu mu mel xale yi xale yi dañ ñuy romb sax ñu jël seen téléphone daw xale yi dañ ñuy romb ñu jël seen téléphone daw ndax lan lëndëm ndax lan lëndëm lamp amu fi dara amu fi monsieur le maire gisuñu liggéeyam fii gisuñu liggéeyam fii lenn la mën enquête enquête juuti yi la mën ak leneen ak leneen man maa ko wax man man maa ko ëpp njëriñ Fass man man maa ko ëpp njëriñ waaw. salaamaaleykum mbooloo bi ñun waa Fass ñun dañu am lu ñu naqari te lu ñu naqari dafa yàgg depuis ba ma juddoo ba tey dañoo dund ci lu ñu naqari ki fi nekk ak ki fi jógee ku nekk bees yëpp a yem ñun sonn nañu fi sonn yem ndax ñu dëkk fii tey gaara fi seen oto tey kenn dëkku fi. ñii Géejawaay ñii Parcelles ñii Kër saar ñii ma Yëmbal mhm. mais ñun dañu sonn bu ñu xëyee suba suñu njaboot yi amuñu sécurité daal ñun mhm. fi mu ne boo amoon soxla tey di seeti sa benn xarit fii da ngay yëndu oto yi ba xam nax nit nekk fi ne wala déew ndax réew mi ñeme woo ko koñ bii lu ne ngi fi mhm. tey lii lakk gii tey bu nekkoon guddi tey fan la ñu jëm fan la ñu jëm ñun sonn ñu pay mii nag ñun pay rek lañ ci xam ba mu gañee ba léegi ba mu ba mu ba mu faloo ba léegi ñun ñun gisuñu ko daful passeport kenn xameewu ko benn xale xameewul pay ñun ñoo ko wax pay rek lañ ci ñun nag ñu nga dund lu metti may leen ma ma ne ñu nga dund lakk gi mënu gënoo xam li ko indi mais dinañ ko lijjanti ba mu leer bala fi gën naa dañoo dañoo jékki-jékki gis mu boy kër gii naka tey samay kër doom lañu samay kër xarit lañu samay kër mbokk lañu sonn nañu fa sonn yam porte à porte musa la musu ko def musul def porte à ñun xamuñu ko ñun nañu liggéeyal suñu koñ ñun pavé bii dañ koy dégg rek pavé dañ koy dégg rek foo romb gis foo romb ay xeer ngay gis ñun kenn musuñoo pavé ba pavé xawee ba tey école bi ubbi suñu doom yaa ngi fi ku ne xam ne kàcce faas ñun ñëpp sonn nañu ñun ñooy paweer suñu bopp di for ay xeer ñun maire bi ñun xamuñu ko mais garage bii dañ ko yàgg ko jooy depuis Ousmane Ndoye ba tey waa Fass ñu ngi jooy garage bii ñun sonn nañu fu sonn yem ku ñu jàppale la bëgg fi mu ne nag suñu doom yeeg suñu jàmm yi li ñu wax rek ñun ñu ngi seen ginnaaw bañu ñu ci ba gi fer ndax lii bu nekkoon xaaja guddi kenn waxatu ko moor da fi am te ñaanuñu ko yàlla nañuy wax ci ni Fass amul canalisation amuñu ndox amuñu dara ñun sonn nañu fu sonn yem Fass daal ñu ngi nii rek amuñu dara te si nan nga tudd. ay dëggee laa tudd. kër gi doon lakk ci biir kër gi nga dëkk wala. waaw ci laa dëkk. waaw lan moo waral lakk gi. lakk bi ñun xamuñu lu ko waral de mais ñun dañoo toog fee kër gi fee sama kër maam ñun foofu nañuy tayee dañoo toog. ba ay 21 heures yooyu xadi moo ñu woo ne am na luy takk kii li saxaar ci ginnaaw ñun ñu génn gis affaire bi di takk laataa ñuy woote ay sapeur dañoo woote ba sonn jotuñu leen affaire bi jàpp kër gi jàpp jàppaale fii yëpp yaa ngi dégg ñun dimanche ñun xale yi man dama leen di teel a kii pour ñu ñu dem tëddi mais dañ doon tey cere ñu guddee yàllaa ñu sutura ñu ñëpp kër gi fee nañ nekk xale yi dama la doon dàq ma ne mu ngi guddi ñu lañ dem tëddi ñu dañuy teel a 20 heures ñu tëddi ah li bu nekkoon ay xaaju guddi tey fu ñu koy waxi jee day ñaaw mais li du yoon ça fait deux ma nekk fii mais bu ma ñëwee fii ba tey gisuma benn avancement xaw ma sax kan mooy mairie Fass man je suis étudiante à l'UCAD yaa ngi dégg mais lii musuma kaa gis koñ boo xam ne yow boo feebaree xaaju guddi pour nga génn sa problème la ah Xadi Njaay fii bu muy am doom tamit dafa sonn bu doo xam balaa ngay génn ñooy mattu nga wasin sa si mbedd bi ah yoon dañ see war a wax mais fii da ngay koo xam ne day ñëw fii boo boo bëggee gaare si tali ba ngay gaare du yoon ah du yoon te garage bii nii fii nii yëpp dafa bëri ay essence fii dara bu lakkee lépp ay jàpp ah xale yu góor yi tey bu ñu ñëwuloon balaa sapeur kon kenn waxatu ko kër gi yëpp ay jeex ah franchement man maa leen di maa leen di delloo njukkal parce que ay jàmbaar nañ torop si lii ah mairie yoo xam ne yow da ngay def meeting def lépp dañ lay def ay promesse yu dul jeex ah li mais lii dañ passe bi lii la am boo xëyee di xëju ay pétrole lu nekk ah, ay huile mais ça c'est pas normal da am xew sa doo mun a baas ah lii lii du yoon dañ ko war a lijjante du yoon parce que sonn nañ Ousmane Sagna ñu wax ci lakk gi fii lan moo ko waral ak lakk bi moom duñu duñu wax dara lu dul ndogal suñu borom mais dafa am leen loo xam ne tamit ñun ñoo siy sabablu ñun jullitu yàlla lépp lu ñëw dañ koy santee suñu borom mais dafa am leen loo xam ne si ay conditions lay doxee tamit suñu borom bu la tegee natu yaakaar naa yow jullitu yàlla da nga koy da nga koy nangu déggu ba te bañ a saalit teewul nga nga dem say say kéemtu laay kattan yaakaar naa ne laqi ba mu amee ñun fële lañ nekkoon si kaw tali bi affaire bi ci biir bi la ruq bi fii c'est la pagaille dañuy waxtaan sécologique fii nii gars yi dañoo wax ji dañ koy layam layamal fii suñu maire bu fi nekkoon mu ngi tudd Ousmane Ndoye mauvaise ñu jëlee ko fi yaakaar naa dañ fi andi maire boo xam ne dañuy ñun seni lu ñu bëgg moom moom la ñuy def ak suñu yaay ak suñuy papa yaa ma ak suñu ay maam yaa may dégg 11 mois la fi maire bi am liggéey fi gàtt man maa koy sama baat nii poto biir këram la ma taaj ak sama ay délégation moom xam nañu bu baax je me nomme Ousmane Sagna ragal ma li may wax bërki de moo Ndiaye amoon nañ benn cas boo xam ne moo gën a urgent suñu benn boo xam ne dafa paralysme am ay am plusieurs yaramam noonu la ñëw di ñu wax ay yoo xam ne ay détails la yaa may dégg ñun dafa am leen loo xam ne boo ko ci delee suñu dënn rek ñun seni ñun loolu la ñuy demee moo gën a dafa dafa dafa imposé benn ne dafa imposé benn affaire ne mooy kan lan affiché Ousmane Sonko ku xam Ousmane Sonko xam ne nit du dëgg la lu mu bokkee si coalition bi lu mu bokkee si coalition bi loolu moo tax ñu amoon si yaakaar rek carrément kii bu toogee suñu maire Fass nii lay demee même ban coalition la bokk coalition Yewwi Askan Wi lii Ousmane Sonko bu ko gisoon dal si kawam barke alxuraanu karim ndax dafa ne woon maire yi ku ma gis te liggéeyul benn goxam ma porte ko plainte en tant que man waaw lii dañ koy dañ koy jàllale pour Ousmane Sonko mun ko dégg xam ne ne commune Fass Gueule Tapée Colobane suñu maire bi liggéeyu fi gàtt gàtt liggéeyu ko fi gat liggéey ko fi loo waxee mu ne ma sama poosa jël di def garab sama poosa jël di nit non on se dit vérité amul lu ñu nekk fii dañuy layam layamal si kaw tali bi laa dëkk marché Fass marché Fass laa dëkk Fass bâtiment numéro 21 B Ousmane Sagna rek moom li may wax yéen a may dégg lii c'est trop lii c'est trop nekkul tey kese am na benn femme boo xam ne dafa am dafa nekkoon enceinte fii non da daa nekkoon en errant pour mu wasin problème la pour taxi jël ko yóbbu ko hôpital problème la gan di maamu problème pour pour oto dugg taxi taxi pour benn taxi dugg ñëw jël si ko problème noonu la def noonu la def ba perdre ay doomam yaa may dégg te non déglu leen ma rek yéen a may dégg te nekkul problème yooyu rek dañ fiy jànkoon ne ñi nga xam ne seen kër dafa lakk avant lakk bi amoon nañ toor boo xam ne ñoom bàyyi ñu si xel mais ñun bàyyi nañ ko xel ndax dafa metti ndax ñun ñoo leen ñun ñoo leen assisté lu ci ëpp ndax ñoom yàlla yàlla da leen wërsëgal njaboot ju jigéen yu bëri ñoom góor yi demee fa noonu mais ñun ñun nag ñun seen ay njaboot lañ ndax am nañ fa ay yaay am nañ fa ay tànd ñoom seen ay mag ak suñu ay mag ñoo doon demante ñoo bokkoon classe kon ñoom suñu ay mbokk lañ mbokk gu sax la ñii am nañ fi dese laa la dese parce que alxuraan pour ñu baasoon problème la seen kër la ñuy activé suñu woowee ñu ne ko diw muy àll ba kii ñu yi mais ñoo ñoom ñoom ñoom ñoom ñoom ñu nekk en colère ñoom ñoom ñu ngi seen xàppine ñoom mécanicien dañuy dagg seen teene ca ay tuwaawoon mais lii gisul leen la yéen population bi parce que li yàgg na fi ay at la ah la jamonoy Senghor jamonoy Senghor lu amoon am na ñoon ñoo xam ne ba ñëwee jamonoy Abdou Diouf dañ ne dootul amati dañ ko dindi jamonoy Abdou jamonoy am na loo xam ne da doon dox si àdduna bi ba ñëwee jamonoy Abdoulaye dañ ne dañ ko fiy dindi Macky Sall de même te Macky Sall ñun waxuñu ay waxam sax mais ndax yëpp si moom la munoo nekk fii di jël ay ay nit ñoo xam ne dañuy jël suñu alal def ko ndono sa waay ku fi gëm boppam ku fi gëm boppam tabax benn kër léegi borom milliardaire bi koy puus nangu ko loolu moo fi am barke alxuraanu karim booy yaa ngi koy xeex de moo tax ma dal sama kaw booy ma ne benn booy bu mu fi yëkkati benn oto mécanicien ñoom déterminé ñoom en tant que maire ndax affaire la si suuf te kër gu amul fondement du dëgër dañuy waxtaan te ñoom ñooy fondement mécanicien yi ñoom ñooy leen di valider ay yenn papier ñoom ñu am fitu def lu leen neex suñu biir koñ am ñoo xam ne seen ay papa demeewul fa noonu ay gardien lañ dañuy fay juuti dañuy liggéey guddi gi dañuy liggéey guddi dalu bëccëg nga koy dégg tànkal yooyu noonu amul nga dellu wala dama lay wax problème nu muy répercuté ñu dellu tàngal waajur jàmm seen ay waajur ñoom nekkul ñu fii ñu ngi dem tagg ay terrain fu leen neex tabax nu leen neexee suñu wàccee di dawal oto bu luxe ay papal mënuñu sax dawal mbége di teg ay conditions yu métti dañuy waxtaan sécurologique yii dafa métti te day dañ par force su mënul dañ dañuy song suñu maire xam na bu baax bañ ko soxlee 13 heures 13 heures lay xëy suñu maire Abdou Aziz dañ koy bañ ñun ñun dañ koy bañ en tant que suñu maire ñun mënuñu nekk si ay ay difficultés yu métti suñu maire bi di xëy ay bañ fa demee di ko seeti 13 heures rek ñu woon la maire bi di xëy en tant que maire yow yaa ngi loo xam ne dafa dafa doy waar Gueule Tapée Fass Colobane dafa yaatu ressource bu nee nekk am nañ ko ñun ressource bu ne am nañ ko suñu suñu suñu xa suñu budget suñu budget maire ëpp na 2 milliards et quelque 2 milliards et quelque lay doon mais du ay 1 milliard du ay kii 2 milliards ëpp na xaalis bi dafa bëri dafa jéggi dayo mais ñoom nag lekk nañ ko def. jërëjëf jërëjëf jërëjëf dëgg dëgg waaw jërëjëf jërëjëf. waaw ah, salaamaaleykum man la Pape Fili Pape Fili Ba nekk délégué de quartier Fass Louga waaw ñun euh, situation bu nu mu demee ni métti na trop mais un peu benn côté bettuñu parce que yow mës nga fi ñëw une fois ñu wax la problème suñu tali bi latérite bi parce que loolu dafa favoriser garage yi nga xam ne dañ fi nekk ci occupation yu illégale la parce que si mbedd mi la ñuy liggéeyee donc euh, ñun boo moo nekk suñu premier problème léegi lii lu tax bettuñu moom mooy que ne xalaatoon nañ ne bu amee ki euh, incendie wala dara pour service yi accès de fii dafay métti là preuve moom mooy que ne bi ñu wooyee sapeur ñu ñëw def nañ au moins ay quarante 45 minutes pour ñu mun a accéder si biir pour mun a nekk si lakk bi dañu obligé taxaw à distance branche seen yi pour mun a ñëw intérieur pour fay pour mun a fay lakk bi xam nga ga garage yi mooy ni nga constaté rek garage yi la preuve bi moom mooy que ne ñoom ñëpp ñu nekk si garage bi dañu dëkkul sax fii ñoom ñëpp ñu ngi dëkk pratiquement lu si ëpp banlieue la ñu dëkk donc bu ñu wàccee ngoon gi 18 heures 19 heures dañuy euh, dem seen yoon am na borom kër yoo xam ne dañuy am problème mu pour génn dañuy ñëw des fois bëgg a génn am na un bu dëkk fii day bëgg a génn mais booy ñëw ba si kii bi gis oto yi baare ko day obligé arriéraat otoom bâche ko génn jël taxi te dañ koy kaas kaas nañ ko kaas ba sonn mais bon ba fu mu ne amuñu ko ñu jàppale si loolu xam nga donc surtout latérite bi suuf bi dafa mel ne ñun nekkuñu dakaar xool centre Dakar suuf ñun rek ñoo ko dese ñu ñëw defal ñu latérite bu xonq bi pendant presque un an et quelque xam nga loolu yëpp dañ koy subir ñun si suñu kii bi mais li gën a métti moom mooy comme lii mënoon na fi gën a métti nii. bu heure bi gënoon yéex tuuti surtout sapeurs yi pour ñu accéder si biir parce que ñoom dañu tëj seen oto yi si digg yoon bi yëpp dem seen yoon xam donc métti na trop daal waaw ñuy xool nag ku ñu si jàppale bon maire mi ngi fii ak euh, commissaire xëy na dinañ jël décision à partir de tey même même bu ñu jëlu décision ñun population bi wax dëgg yàlla dinañ jël suñu suñu responsabilité mooy nag dinañ fexe ba dajale toute la population ñu waxtaan ak maire mu jël décision mais pour le moment moom dootuñu ngi liggéey dootul amati mécanicien yi amatul euh, liggéey fii ba ñuy régler problème day arrêté pour le moment ñuy oto yi suba amul ubbi oto di fi